wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalian li wajhi rabbi wa bi kalaami ya wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara yaa man yaquudu li ma axtaaru salli ala man ismul muxtaaru mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di siyaar leen nuyu bu baax a baax di wax ni tey amati nañ naqar ak tiis ci li xew démb ca jataay bu mag boobu ñu doon taxawe waaye bala ma caa àddu rek damay njëkk sant Serigne Mountakha mi nga xam te mooy Cheikhul Khadim démb wanewaat nga ni yow yaay Serigne Touba ndax Serigne Touba waxtu julli mosu koo raw mosu koo faat bal sax tubaab yi maanaam bari na natt yi ñu doon sëñ bi te fañ ko doon jaarale mooy fexe ba waxtu julli raw ko rek. la tax mu julli ca géej ga waxtu julli lañ bëggoon mu raw ko moo tax mu julli keroog ba nga xamante ni jël nañ ndaw soosa dugal ko ca biir néeg sëriñ bi te ndaw sa soppaliku mbott lañ bëggoon ca moom mooy mu faat julli. kon faat julli mooy li noon bi gënoon a bëgg Serigne Touba ngir mu def ko moo tax keroog ba kër gay lakk sëriñ bi ci boppam dafa wax ni bàyyi leen kër gi mu lakk te ngeen dem taxawal julli gi sëñ bi bu musaa gis koo xam te nii julli dafa jot gis la jàkk ji day tiit jàpp ni da ngaa feebar feebaru faatu am na mag moo xam te nii sëñ bi mos nañoo li xaam gisu ko ñu selmalee mu waaxu wutali néegam dem mag ma tëb jóg bi mu jógee sëriñ bi daan ni ko daan ko yow day ku ñàkk ndax jàppoon naa ni waxtu suñu borom wii taxawe ko moo la gënal nga dégg sama jëmm ji ñëw tax nga tëb jóg moo tax keroog ba ñuy waajal sëriñ bi di ko jébbal boroomam biñ nee ba waxtu julli jot sëriñ Mbàkke bu si dafa wax ni jëmm ji nee na ma woon lépp looy def ba julli jot na nga ko bàyyi dem julli ji loolu la wax jëmm ji nee na ma woon lépp looy def ba julli jot na ko bàyyi dem julli ji kon nag lu mel nii bu xewee lu ko gën a tuuti di xew jamono bu nekk kenn ku nekk di coow ak a wax lii moo gën a rëy moo gën a metti te moo gën a diis ndax ci dëkkub sëriñ Touba bi lu mu gàtt gàtt lu mat un million personne faat waxtu julli loola nag bu ko kenn giñ état bu ko kenn giñ kenn kurut waa Touba nekkoon ci njabootu Serigne Touba ñooña lañ ko war a giñ waaye wariñ koo giñ waa Touba moom wariñ koo giñ état wariñ koo giñ kenn suñ mun taxaa moom waaye na ni mooy Serigne Touba moom waaye na ko ndax moom ba mu defee farata ja dafa dem ndax xam na ni bu fa toogee waxtu julli dana fa raw moo tax mu dem alhamdulilah man maa nga fa woon wa shahida shahid min ahlihi man maa nga fa woon séeré laaj ba ba sama téléphone noddee damaa dem sëgg ci nopp sëriñ Abdou Samad ni ko sëriñ bi waxtu julli jot na sëriñ Abdou Samad yónnee dem ca kay wax yónni fa ndaw ni ko demal wax ko xaw ma ndaw la dem na xaw ma demul nag ba ma xamee ni ñii duñ julli ci laa jóg dem woo xalifab sëriñ Mbàkke Buso ba fa nekkoon sëriñ Omar Buso ni ko sëñ bi dee waxtu julli jot na suñu omar ni ma nañ dem julli ci ñu àgg li suñu omar julli ñun ñu julli alhamdulilah ginnaaw sëriñ tubaa faatu doon waxtu julli ca ginnaaw suñu mbàkke bi sa faatu waxtu julli ba ñuy jébbal suñu tubaa boromam tey tamit xalifa suñu xalifa suñu mbàkke bi sa faatu waxtu julli ngir teg xeeru ngir ubbi ouverture ila touba lii nag moom bii bu rëy rëy rëy la defet bu rëyee rëy la ci yoon wi war nañ cee taxaw war nañ koo saafara képp ku ci waxul tamit dangaa ragal te diine ñoru la waaye ku diine ñor jëmm jéem a jàkkaar lool ñor la dinga xam ne Serigne Touba léppam julli la woon léppam jaamu yàlla la woon léppam du ko bàyyi woon musta am bànneex ci àdduna ngir jaamu yàlla sëriñ bi musta am bànneex ci àdduna ngir bëgg lu baax ak bëgg nga ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala kon nag bu fekkee da ngaa wax ne yaay sërib Serigne Touba wala yaay jabaru sëriñ Touba yaay taalib bi gën ci moo bi gën ci nit ñi yaay sët bi gën ci nit ñi bu fekkee da ngaa bëgg a wax ni Serigne Touba mooy sa wala mooy sa te moo gën ci nit ñi war ngaa fexe tamit prouver luy wane ni yow it ci nit ñi gën nga bokk kon ndax sëriñ bu baax kat boo ko amee la ca baax mooy nga nekk taalibe bu baax maam ju baax it boo ko amee la baax mooy nga nekk sët bu baax loolu moo ci am solo ndax gis nañ doomi Seydina Noox fa mujj waxuma la ngir provoquer kenn waaye dafa nekk loo xam te ne munkarun ankarnaahu ab tiis ab lu bon la lu xew ci yoon wi ñëpp a war a taxaw weddi ko ñëpp war a taxaw wax ci ndax lii kat dafa tiis bu kenn wax nag ni waroon na ko wax ci suuf ndax wax naa la ma waroon wax ci suuf waaye kenn faalewu ma moo tax ma def déclaration bii di wane ni kat lii nga ko def seen bopp la présenté waaye présenté wu Sëñ Muntaxa présenté wul xalifa général des Mourides présenté wul yoonu Mouride présenté wul Sëñ Tuuba présenté wul kàddu l'islam li mu présenté mooy ay jëmm yoo xam te ni seen bopp leen ñor seen dund leen ñor seen addinaa leen ñor moom la ñu bëgg a fas yéenee jagal waaye seen alaxira ak Sëñ Tuuba ñoru leen loolu képp lay signifié wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil